xamna xawna gudd tuti insha allah taala dañi daal rek songu beneenub téré insha allah muy lum'atul i'tiqad al hadi ila sabil ar rashad li cheikh ibn qudam al maqdisi ñaan yàlla mu maynu nu deg ko te luñ ca def mu nangul ñuko luñ ca ju mu jéggal ñu def ko fi mizan hasanatina wa hasanatikum واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين